mu joxoon ci alqar ko mujmal la joxe ci lafzu alqar u mën naa firi mbërëg mën naa firi set si mbërëg maanaam laab ma ne woon nag li gën mooy nga xool barab bi xar u nekk nga xool ci tegtali barab bii mbërëg la fi teg wala laab la fi bu fekkee tegtali dafa joxe ne laab lay tekki fii nga firee ko laab bu fekkee tegtali dafa joxe ne mbërëg lay tekki fii nga firee ko mbërëg waaye doo gis benn tegtal buy wane ne xar u mbërëg lay tekki rek foo gisati xar wu nga ne mbërëg la su boobaa kee baat bi nekkatul mujmal mu bayeen la baat bi kon ci sariya jëmtalatul ñaari maana benn maanaa rek la mais baat bi même ci sharia dafa jëmtalu ñaari maanaam moo tax day nekk mujmal foo ko gis foo nga dellu si dalil pour xam fii moom mbërëg la fi tekk wala laab andi woon na fa xadis nit jigéen ju amee deretu feebar yonent ne ko bàyyil julli lu toll ni la nga daan gis mbërëg xadra ma kaana tax bi su ko aqraawu ko ku ne xam na ne mbërëg moo lay tee julli bërëg mooy téye jigéen tëj ko ba du mën a jaamu yàlla kon foofu aqraawu leer na ne mbërëg lay firi ci hadis bi ndax laab moom du téye ji jaamu yàlla jigéen waaye mbërëg moo koy téye jaamu yàlla kon bu la yonentu waxee ne ko toogal du toll ni la lool di téye kon sa mbërëg lañ ko mën a firi amaa laay ji ma waxoon nag ne salaasatu xuroo ñetti mbërëg la mu sukkandiku ci hadis bi loolu moom demeewul noonu laay ji Malik ak Saafi yëpp dañ ne aqraaw foofu laab lay firi ndaa laan da alquran dafa wax ne fa talliquhunna na ngeen fase jigéen ñi li iddatin na si jamono ba ñuy eddaw jamono buñ mën a eddaw ay fii zamani iddatihinna kon jamono bi nga fase jigéen rek foofu la war a commencé eddaw ñu xool nag ban jamono lañu war a commencé eddaw te def ne ñuñ fase nañ mu leen diku ñetti ñetti ñetti adda ñetti adda maanaam ñetti xuru ñetti xar u te ci xar yooyu ci nga war a commencé adda léegi ñu xool fan lañu war a commencé adda si jamono mbërë jamono set gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne jigéen nañ ko fase nañ ko fase si jamono bim setee bim laabee ñu déggee ne kon jamono bi nga laabee ci nga war a commencer edda te foofu lañ la mën a fase loolu dana jàngale ne kon ñetti laab lañ namm ci laay ja ñetti laab lañ nang ci laay ja jigéen ñi na ngeen leen fase si jamono bu ñu mën a commencé edda yonent ne bu kenn fase si mbërëg bu doon edda ji dafay commencé ci mbërëg ñu jàpp ko si ñetti mbërëg da nga koy fas jamono mbërëg ndax su boobaa dana mën a commencé edda waaye edda ji compté wuñ ko ci wàllu mbërëg ci wàllu laab lañ ko war a compté moo tax yonent ne bu kenn fase ci mbërëg ndax foofu jigéen du fa mën a commencé edda boo ko fasoon ci mbërëg xaar ba mbërëg mu jeex ba laab gi dugg mu kon jamono edda yee mooy jamono laab kon edda ci laab yi la compté wu ci la basé waaye basé wul mukk ci mbërëg Abdullah ibn Omar dafa fas a fase soxnaam jamono mbërëg yonentu mer na ko demal fayal ji ko bu gisee mbërëg ba set nga bàyyi waat ko mu gisaan mbërëg ba set bu la neexee fase bu la neexee téye mais ci jamono jii moom mu yore mbërëg bul ko ci fase kon bu alquran waxee mu ne ndiku leen ñetti laab ñetti xuru xuru mooy jamono ji ñu war a eddaw yooyu laab rek la mën a firi ndax jamono ji nit di commencé xeddaw jigéen di commencé xeddaw dafay fekk mu nekk ci set loolu mooy benn ba mu amaat beneen set muy ñaar mu amaat beneen set buy set googu di jeex muy gis mbërëg muy ñett kon boo xoolee ci tegtal yooyu dangay gis ne salaasatu xuru yi ca laaya moom ñetti laab la waaye aqraawu ko ci hadis bi ay mbërëg la xam nga ba xam nga ba wala hada boo sukkandikoo ci lii law talaqa bu fasoo ne insaan doomu aadama imraatoo jigéenam ci haydin ci mbërëg waxul naa ñu wax bi waxuñu talaaqil haayidi ci tabbeeg fas ak aji mbërëg fay na haydata naka mbërëg aji bi nga xam ne waqaa tabbi na fiyaa ci moom ak talaaqu fasagam laa toog sa bu duñ ko compté laa noonu ndax moom laa bu du mën a ñàkk min salaasa haydin ci ñetti mbërëg kaamilat yu mat xam lii wax yu kenn xamul <laughs> nee na boo fase woon jigéen ci mbërëg ci mbërëg moom duñ ko compter ci integer ndax ñetti mbërëg yu mat sëkk lañ lañ wax alxuraan waxul ay kaamil su nangam la ñetti mbërëg rek la wax bu doon mbërëg la xuroo ñetti mbërëg la ñetti mbërëg rek la wax dëgg yàlla mbërëg mi foog jeexagul rek yem ci àtteeb mbërëg kanaa gisoo ñu ngi fiiree ñetti laab nga fase ko ci commencement laab ga ci digg laab ga ci mujj laab gaa ci yem nem laab na fa rek nga fase ko lu mu gàtt bu jeexee edda ji dafay jeex gisoo ne ku ëmb eddaam mooy ëmb ëmb ga am doom boo ko fasoon ci fin ëmb ga nga fase ko tey su mu am doom day day set wala du set kon nag bu ñu wax ne eddaay ku ëmb mooy am doom ga na mu ci diirëb ëmb ga yëpp saa yu génnee ci ëmb ga rek jeex na bu doon eddaay jigéen mbërëg ma si raconté wu wax dëgg yàlla du ñu fa nekk naan ci digg mbërëg ma la ci commencement mbërëg ma ci fee mbërëg ma naa mbërëg mu mat naa matu yaa ngi dégg lu ma bëggoo xam parce que ci ëmb duñ xool diir bi fekk na ko ci ëmb daal boo amee doom jeex na fekk na ko ci mbërëg bu seetee jeex na fekk na ko ci laab lu mu gàtt gàtt bu laab googu jeexee jeex na mais li ta taasuf la takalluf mooy firee aqra ci laay ji noo mënul lay su boobaa nga waaw léegi ñëwe waaw lu taxoon boo ko fasee ci mbërëg duñ ko jàppee edda nga ne waaw parce que mbërëg mu matul loolu mooy waxi la mbërëg mi bu matee bu matul it fas nga ko ci mbërëg rek bu doon mbërëg mi lañu compté edda ji moom lañ koy compté yaa nga wax waaw que alxuraan si ñetti xuru yu mat ñetti rek kon bu doon mbërëg mi la soo ko mu gàtt rek mu dugg duggeeg yëpp mbërëg la rek comme ni nga xam ne ñu wax ne laab lañ ko firee ñoom commencement laab ga nga ko faseem digg ba mujj ga ñoo ci laab lañ koy jàppee compter ko benn boo ko fasoon mu nekk ci laab tey suba mu gis mbërëg am na benn xam na benn laab pourtant gàtt na waaye ñoom xooluñ diir bi ñett la alquran wax am nga benn rek benn bi gàtt na am gudd na sa yoon nekkul si yaa ngi noonu bëgg mbaa ah moo mu moo baaxut moo du ko mën a comprendre bu baax hmm? ko waxee nii. Hmm? waa hmm? jot wa hmm? hmm? dañuy jàng waaw dafa aay ñu fas ah, moom moom ni mu waxee. waaw noonu waaw moom loolu lay wax pour bañ a da pour bañ a génn wàllu loolu matut edda waaw moom moom loolu la bëgga lay. ne lu tax alxuraan aaya ko ñu fas ko ci mbërëg mooy genn wàllu mbërëg mutut mutut edd te ñun ñu gis ne genn wàllu ëmb mat na edd ñu jàpp ne laab la genn wàll laab mat na edd ci wàllu mbërëg moom konti wuñ fan ya ci lam la fekk la te ñu gis ne tamit benn mbërëg yëpp benn atta lay doon ci lislaam jigéen benn mbërëgam fekk setul ba jeex rek dañuy jàpp ne loolu benn mbërëg la rek edd nag namuñ ci temps xedd bu ci namoon taa kon dañ naan jigéen ju ëmb bu ñu ko fasee ci digg ëmb ba du kon loolu du xedd ja waaw matut parce que matut ëmb bu ma sëkk xeddat boo xoolee lislaam compté wu ko ci temps ca la nga nekk la kon mbërëg mi lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt bu doon edd bi si mën a mbërëg la mbërëg lañ koy compté mbërëg mi lu mu gàtt gàtt benn edd la takalul googu nag li ko andil mooy lim firee salaasatu xuru waaw da ko aaye parce que mbërëg du jamono edd maanaam edd basé wut ci wàllu mbërëg si ñetti set la la kii léegi boo ko fasee si jamono mbërëg foo mu xaar ba mu set mu konte set googu mu muy benn laab bu gisee mbërëg ba setaat mu konte set googu muy ñaari set bu gisaatee mbërëg ba setaat mu compter set googu muy ñett buy gis mbërëg si troisième fois gi mu jeex su boobaa idda gi day gudd parce que fase ko si jamono bu mu war a iddawoo jamono mbërëg ku ne xam ne waruñ see iddawoo alxuraan bu ne ko si jamono idda te jamono idda si laab la fekk kon ñu xam ne kon waxtu ñu war a iddawoo mooy waxtu laab yi pas waxtu mbërëg yi parce que mbërëg alxuraan tuddeewu ko jamono iddati yaa ngi xam mu bëgg a wax hmm? falaw xasab naaxa buñ ko compté woon la kaana ko mu nekk xaydate ne ñaari mbërëg mu nekk xaydate ak genn wàllu mbërëg masala ci misaal wala la fax naa buñ tàppoon waxul naa ñëw wa taaxus da ngay jël xaydate ne ñaari mbërëg wala su xaydate ak genn wàllu mbërëg min awee talaqas ñëw benn fasaga wala su xaydate ak genn wàllu mbërëg min àqi xaydate ci mujj edda la kaana ko mu nekk fi daal ci talfiq taqale lii muy wax nii lépp dama bëgg wax ne daal ne boo gisee ñu aaye fasa ci jamono mbërëg mooy mbërëg mu matut kon su boba mom bo jappé ci ni wax ni bu sa jabar di gis minute mbeureuk ci jamono minute bi gis mbeureuk wala yaa nga fase ko ndax bu moom man na sëkk tala laa bi boo jàppoon ci ni wax ni bu lu wone na jabar di seconde bi wala waxtu bi ci la gis mbeureuk xanaa man nga ko fase kon na su boba mbeureuk mu ma sëkk bu ne dañoo aaye fase si jamono mbeureuk parce que mbeureuk moom matu genn walu mbeureuk lay doon ak yeneen ñaari mbërëg yu ma sëkk te loolu baaxut ñetti mbërëg la alxuraan wax kon su fekkee sa jabar mu ngi door a gis mbërëg nii xanaa nga ko fase ana wax loolu yaa ngi dégg lu mu bëgg a xam moo tax mu bu baaxul foo mu def takkaluf dugal ci li si mënu nekk fase si jamono mbërëg dafa xarab dañ ko aaye moo xam mu ngi door a gis mbërëgam moo xam ci digg ba la moo xam ca feega la loolu luñ ciy jàngee mooy ne kon jamono laab jamono yi ñu war a eddoo mooy jamono set pas jamono yi mbërëg moom nag mu ne dégg nga boo ne woon ñaari mbërëg la ngay jël maanaam da nga jël ñaari mbërëg yu ma sëkk yi ak genn wàllu mbërëg gi nga ko fase ak nga jëlaat si dugg juddu ba genn wàllu mbërëg edd jeex mu ne suubaa da ngay tal fex te lislaam bëggut tal fex yërëb boo ko xam nga lu ma bëgg waxam alquran dam ne na ngeen fase jigéen ñi si jamono bi nga xam ne mën nañ see commencé edd ba pare na ngeen leen fase nag yu nut neen mooy na ngeen leen fase si jamono laab kon jamono ji ñu commencé edda mooy jamono laab xanaa loolu leer na kon wal mutalaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna nañ muñandiku kañ la ñuy commencé muñandiku si jamono bañ leen fase jamono boobu suñu leen fekk ci laab mu ne ñett it wala ñu ne ko ñetti xuru mooy ñetti laab parce que jamono laab googu ci edd ji la bokk te bu doon mbërëg gi edd gi lim ci ne mooy mbërëg ma kon jamono laab googu du bokk ci edda loolu mooy leeral ne salaasatu xuru mooy ñetti laab moom nag mu ne déere ñetti mbërëg dem firee ko xadis boo xam ne dëgg la mbërëg lay wax waaye laa ji moom waxoon mbërëg hmm? ah. ba ko firee loolu mu dugg ci benn problème problème bi mooy lan mooy waaw boo gisee ñu ne bul fase si jamono mbërëg parce que loolu genn wàllu mbërëg la léegi kon ñu ne ko waa léegi bu fekkoon léegi commencement dafa gis régal tey tey ndax mën ngoo fase boobu du genn wàllu mbërëg dafa aay fase si jamono mbërëg ndax mbërëg kenn du si eddow jamono yi ñuy eddow mooy jamonoy laabi ñetti laabi te gis nga wàllu edd wuñ ko ci temps bi mbërëg moom commencement ba fin bi loolu benn mbërëg rek benn mbërëg rek la la doon commencement ba ba fin ba hmm? Hmm? wa ida qul naa bu ñu waxee an al xaru naka xaru xoo mu ala taxaru mooy laab fenoo nag moom yoso bu danañ compté mi ngi xëy na maa tasawuru jamono bu laab mi ngi lati ci mbërëg mi nga xam ne waqaataa bene fiyaa ci moom xataa yaxsula mu am laa ñeel ko salaatul athaari laab kaamilatin bu mat mu ne bu ñu waxee ne xar u laab lay firi bu jigéen ci mbërëg ñu ne xar u laab lay foo mu set foo mu set ci mbërëg googu laab googu lay commencé eddaw su boobaa kon jamono bi nga ko fas yëpp du jamono edd loolu guddal na eddam loolu da alquran aaye loolu moom sariixun la leer na ne ndeke jamonoy euh, ñetti laab la alquran bëgg a wax jigéen ñi nañ toog ñetti set door a amaat jëkkër su ma tadaraja topp mu taxañ wax ji almuallif taal ko raximu yàlla ko yërëm la ilaam la àq ci beneen mbir kon pare na ci mujmal mooy wax ju jara leeral mu bayan mooy mu bayan mooy wax juñ leeral mu ngi ñëw ci nasu ak zahiru ak mu awal نفس ما يوعد يقام يوعد لير نانيلا لا جو تاويل دي جا محمد كون خال محمد مو نيو فو ممكن نيك نان ديرت استاذ لا مو نيو جانغال كات باك ولا بوك فاسوا كون نان جا محمد مو كو ام خير خام محمد لو نفس لا ما يوعد يقام لا جو تاويل اما واخ نك بلاجي تاويل su boobaa la ca baat ba loolu mooy zaaxir li nga xam ni mooy lañ gën a lëng moom mooy mu awwal wane jaa dikk na al gaynde nit ñi lañuy jàpp gaa mooy gaynde gu nekk ci àll ba kon loolu mooy zaaxir waaye nag mën naa firi jàmbaar mooy mu awwal kon baat bu laaju taawi leer nañ mooy nas baat nag bu laajee taawi ba gën a lëng maanaam bi gën a lëng bi xel gën a jàpp gën fës ca baat bi mooy ab zahir maanaam biñ gën a lëng bi nga xam ni mooy bi gën a sori mooy mu awwat yooyu lay jàngale haasi salaasatu boo si ñetti gëstu la fa saara mu mujj fi haasal fasli ci bi la buntu xamsatu boo si di ñetti gëstu alawal bu njëkk fi mujj man lay jàngale wasaani ñaare fi mu bayan lay jàngale wasaani ñetteel fi nas texte lay jàngale waraay wu ñeenteel fi zahir zahir lay jàngale mooy lu feeñ mooy xam jël fi mu awal ci luñ taawi kon juróom la mujj ma rek mu bayan gi njëkkoon jàngale nga teg si nas soog zahir rek mu awal hada nasun mooy laaju taawil mu awal mooy loolu lañ jàpp waaye bokkut ak lii dina feeñ ca baat ba hada hada wa zahiru mooy di feeñ ci baat ba lam naa wax nañu ne mujmal ci mujmalul mu bayan tey nag ñu ngi jàngale nassu mu ne fu maa huwa nassu lan mooy nassu dégg nga xaaral wana al muallif taalifkat bi raximu yàlla ko yërëm allah yàlla mu ne wa nassu nassu orfan ci baat boo xam ne benn maana rek la jamtalu benn maana rek nga ci mën a jàppee xaw la waxam an nasu nas fan ci aada ay istilaan ci jëfandikoo ñooñ eh, usul dégg nga waalam xamal ana nas nas wa sarix maanaam ma seen maanaam waaxidun benn nas mooy sarix lu leer rek ñoom ñaar benn maanaa lañ woowu moom maa mooy na nga xam ne laa yaxtamil du jëmtalu ilaa maanaam lu mooy maanaam waaxidan benn loo xam ne benn maanaam rek lay tekki loolu mooy nas ku lafsi bépp baat laa yaxtamil du jëmtalu ilaa maanaam lu mooy maanaam waaxidan benn فهو من نص النص لين كي تدي بس ما لين كده أيام بتي السريح لأنه نحن من خال الأجود لم من المعاني كي معنا أخرى يعني لو من نص بنا ينجح في أي مسار بيو يموت لك إن شاء الله ربي ولا ينجح ها ما يغني إن يب يب دنك أني جانغ الفون جا هذا يعني السلام والصلاة والتوفيق إلى بلال توكل في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته